mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak Ada Fass l'expérience de Jokal fera face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye lamb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat sénégalais yi. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Dieye foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com. Pape ñoo ngi nag ah ku xam jéy xam kook Lamine xam jéy xam kook liiru te ku xam liiru tamit xam kook Lamine maa ngi lay ziar. maa ngi bu baax di ziar waa Lutte TV di leen bëggee bu baax a baax a baax a baax di am kontaan ak mbégte ñëw fii ci Thiès nag sama rakk di takk jabar mais lépp li ko waral rek mooy suñu mag bi El Hadj Sidi Diakhaté euh, borom Thiès ah suñu mag suñu lépp ñun saa yu ñëwee mu dalal ñu. ak teraanga yi di sonn ci ñun ak cër bi yëgeel bi lu ñu xewle mu teew ca nekk ñun di ñu sagal kon bu ñu ñëwee bu fii Thiès bala ñoo wax dara dañuy félicité Sidi ba pare di ko wax ne ko loo mën yàlla na yokku yàlla na yàlla def jàmm li nga wax dama cee kontaan ku ma xam-xam maag Lamine waaye ku ko xam-xam kook sama doomu ndey ku ne liiru te waxoo jéey doo eggale tur yi ku ne jéey te waxoo liiru doo eggale tur yi mais kon sëy bi ñu ngi ciy ñaanal Lamine yàlla na ko yàlla defal jàmm mu bokk ci sëy yi sëy am njariñ lool yàlla na ko jig yàlla na ko jig yàlla na ko jig bu baax a baax a baax a baax ndax lamin da xale bu yaru xale bu neex a digtal yaakaar naa bi mu ñëwee ci làmb euh, ñi muy jëkk laaj xalaat man ci laa bokk ba ci lii muy def nii di ma déglu lool nag ñu ci waxtaan moo tax keroog bi ma wooyee na ma lang ma doon sant ak la nga bëggan ci man dinaa ko def ma ne ko jërëjëf jaru jarul tàggatoo foo nekk maa ngi sa côté kon maa ngi leen di ñaanal jàmm yéen ñëpp di ñaanal ñi fi ñëw ñëpp jàmm di wax na Lamine kontaan nañu yàlla na ko yàlla defal jàmm bu baax a baax daal jërëjëf jaa ngeen jëf jaajëf kii mooy Lo Soda borom yaraax doom day Serigne Ndiour sama adversaire bi may waaj a damm nag dinaa ko dinaa dinaa ko daan ba mu waa waaw non yow yow Serigne Ndiour moo la mën Serigne maa ko non Serigne moo la mën da lay yow yow audio yi may envoyé yow nee nga ma maa mën Serigne yow yi may envoyé non léegi changé naa moom ah. waaw ndax saa naa ko génn na néeg ah, léegi waaw génn na néeg waaw waaw na néeg léegi waaw dara di ko ñaanal doomam jooju tam yàlla na dund. waaw gis nga waa ñoo ngi koy ñaanal doomam boobu yàlla na dund ba am ndey ak baay quoi Serigne Diouf moom suñu waay la. Lamine la. waa xam nga Lamine moom daa nekk suñu nit nekk kenn si ñun. di ñaan ñun moom lu TV lañ bokk quoi yow Boucar ak moom ak Beuz yëpp suñuy doomu ndey lañ suñu lépp lañ bu ñu xewlee yëgal ñu xam nga kon ñun dañ war teew quoi boo xoolee ay mbër yu ndaw lañ mais daa jël téléphone woo ñu yëgal ñu quoi te bëgg moom yëg moo koy fay moo tax ma ñëw teew xam nga teewaay tam Serigne Diouf ak sama kii plan bi tam Boy Diop bu yaraax xam nga ñu ànd tam ñoo teew si bis bi quoi ndax yéen yéen ko jar waaw li ma la wax. Pape Ndiaye kii mooy Cheikh Bass gars yi xamee leen ko nag gaa ngi lay wër nag borom commentaire yi mu ngi ni borom Kër Massar ah doom doom doom day doom day Ama bu Malika maa ngi ñëw. kii mooy Lo Soda borom yara doom day Serigne Ndiour sama adversaire bi may waaj a damm nag dinaa ko dinaa ko ko daan ba mu waaw non yow yow sëriñ bi moo la mën. non sëriñ maa ko mën non yow yow yow yi nga may envoyé yow nee nga ma maa mën sëriñ yow audio yi may envoyé. non léegi kay changé naa ko moom. Ah. waaw ndax saa gis naa ko génn na néeg léegi. waaw ah, génn na néeg waaw waaw génn na néeg ñaanal doomam jooju tam yàlla dund. waaw gis nga waaw ñu ngi koy ñaanal doomam boobu yàlla dund ba am ndey ak baay quoi sëriñ Diouf moom suñu waay la. Lamine la waa xam nga Lamine daa nekk suñu nit nekk kenn si ñun ñaan ñun moom Lutte TV lañ bokk quoi yow Boucar ak moom ak Beuz yëpp suñuy doomu nday lañ suñu lépp lañ bu ñu lee yëgal ñu xam nga kon ñun dañ war teew quoi boo xoolee ay mbër yu ndaw lañ mais daajal jël téléphone woo ñu yëgal ñu quoi te bëgg moom yëg moo koy fay moo tax ma ñëw teew xam nga teewaay la tam Serigne Diouf ak sama kii plan bi tam Boy Diop bu yaraax xam nga ñu antam tam ñëw teew si bis bi quoi ndax yéen yéen a ko jar waaw li ma la wax. kii mooy Cheikh Bass gars leen ko nag gaa ngi lay nag borom commentaire yi mu ngi nii borom Kër Masar ah doom doom doom day doom day Ama bu maliga maa ngi ñëw. kar maa lay delloo ziar di la bëggee bu baax di ziar Papa Ndiaye di leen ziar yéen ñëpp ndax tey sama xol dafa sedd eh, ndax ku nekk lii ngay ñaan yàlla. waaw Lamine xale la waaye am na jom am na la nangu liggéey am kilifa teg si sama digganteeg moom nag. lu ne dégg na ko ci man tamit lu ne dégg naa ko ci mu jàpp rek taw bàyyi man tam ma jàpp taw bàyyi muy sama rak kon nag su demee yàlla def muy jël soxna dama ciy takk rip dama ciy takk rip moo tax ma takk ci rip yemuma ci sañse la toog boo leen yëkkati sama xaaj maye damay organise seen normal ndax mu rafet tey lii dafa rafet oustaz euh, Modou Seck oustaz euh, kii nu mu tudd oustaz Modou Fall mu ngi fii wax dëgg yàlla def déférence ma jógee dakaar ba fii sëñ Cissé mu sëñ Babacar jógee Dakar ba fii ñoom Modou Dieye seen xam nga ñoom Alla Ndiaye ak mbër yi ñoom ñëpp daal vraiment lii dafa neex ku nekk sa bés la am vraiment euh, sama xol tey dafa sedd guy maa ngi koy ñaanal seen sëy bi na barkeel. waaw bës waaw bës bës moo dafa jar a waxal moo nekkoon patron Lamine waaye nekkatul patron Lamine Lamine ay patron léegi ndax célibataire la bës dama takk jabar lu ko dal wala dafa am lu ko dal fekkee dafa am lu ko dal ma ko wax. man li ñu doon fekkee dafa am lu ma dal. ñu trouvé solution ñu trouvé solution. ñu trouvé solution ñu dégg nga maanaam lii su jàllee seen ndax xañ na ci dégg nga maanaam lii su jàllee seen ndax xañ na ci dëgg lañ ko wax dafa doon takk jabar. jabar mooy patron bi takkagul léegi Lamine mi nga xam ne mooy ployam employam takk na am na fit takk léegi nag moom wala su fekkee dafa lu ko dal nan ko wax ma am na ku ma ko yóbbu. ma dàqul bu ma dàqul nag bu leer teey waaw di def tempo tempo escalier par escalier. piano piano rek. piano piano. waaw waaye sànni woo sa xaalis de mbaa xam nga loolu. Ah. ñu sa xaalis lingeer nga tak lingeer baa ngi lingeer baa ngi mama waaw déet yéen daal eh da ngeen daan wax yéen da ngeen di wax leneen ngeen di wax ne leen mama rek séri al amin loo leen di way lu ngeen di way yéen waaw awa jeune fille doon tay fil awa xale kon ma ne ko Lamine yàqoo sa weccet yàqoo weccet yàqoo sa weccet yàqoo xaalis yàqoo xaalis yàqoo xaalis yàqoo xaalis Lamine Seck yàqoo xaalis waa waa du mën a ñàkk de waaw du mën a ñàkk non bul wax ci ay wax yi ñaar ak yooyu moom dée déedéet man ma non man yor naa ñaar waaye dée noon ma doonan bàyyi loolu Lamine mama mii mat na lépp mama mu nga fee mu ngi fii mu ngi gauche mu ngi droite waaye loo ci mën a dégg daal ki yàqul xaalisam ah, ah, yàlla waaye ngi sant yàlla du yow yéen tamit kenn du yaa kenn. yaa la yàlla defal jàmm. amiin ñu bokk man daal xamal lu ma ci bëgg. na neex rek. na neex neex de. na mel ni àjjana. bay ba dama ne Babacar. kenn du yow. tey xol yëpp a sedd. tey lu waral ñu def déplacement def dérangement Lamine Seck moo ko waral. oto nga luyee yow. non luyee moo to de zéro kilomètre laa yor boo xam ne luyee wu ma ko de. déedéet non mais je suis lu la dal amee ah, ba moo ko waral. Lamine kon maa juum Lamine Seck nit ku baax la Lamine sekk xale bu am ful la ci li muy def la xale bu am jom la c'est pas pour rien mu ñëw fii mu mu ñëw mu si fii mu egg si de am na fu mu fekkoon làmb waaye am na lu mu ci liggéey lu bare bare bari loo xam ni réew mi teg nañ ci seen bët eh, eh, te lépp lu muy liggéey nag fun la la ciy jëmbat. moo tax tey ba pare mu respecté nu jox nu suñu cër looloo tax tey ñu teew ci bésam Babacar lamin ñu ngi koy ñaanal bésam bi yàlla na doon njiglaayam soxnaam si yàlla booleel ko yàlla na njiglaayam yàlla na ko ci yàlla defal njaboot gu barke lépp li mu ciy séntu ci lu baax yàlla na ko yàlla defal en tout li ma la mën a wax daal ci gàttal ak grosso mooy Lamine Seck xale bu baax nit ku yaru la nit ku respecté nit la te ku dul joxe cër kenn du la jox cër ku dul topp it kenn du la topp Babacar. jërëjëf jaan xoolal lii. Ah, waaw Doudou yaay mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool looloo tax ñu dem jële ji Jokkel daal di koy boole ak adafas Fass l'expérience de Jokkel fera face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye lamb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat sénégalais yi ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Dieye foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Ndiak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com